asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu juróom-ñaari waxtu moo jot ca HLM Grand Yoff Grand Médine Scat Urbam ay gox lañ fii ci diwaanu Ndakaaru moo jot fii ci 2STV dal leen nag jàmm ci xibaar ci kàllamay kocc ci ngoon gi la gën a fës ca bopp ba ginnaaw korite gi tey jii ëllëg gi mbedd ndakaar yi ñoo ne serew li ëpp ci liggéeykat yi kat dañoo toog seen kër wéyal li nga xam ne moo di fet gi daal di dëddu li nga xam ne moo di seen bërëbu liggéeyukaay ñi nga xam ne ñoo samp seen dënd ci élection sénatoriale yi eh, tey jii ci wi lañ koy daal di tëj ki koy xamale moo di mbëkk mbëkk me ñu dénk lépp loo xam ne moo jëm ci wàllu élection mu ne lépp loo xam ne matuwaay daal dinañ ko fay jël HLM Grand Yoff Grand Médine ak gox yi nga xam ne ñoo ko wër tiitaange fa gën a fees ginnaaw faatu ki nga xam ne moo di Mamadou Thialy Ndiaye ñàkku karange la askan wa di daal di joytu fële ca bitim réew dañu ngi dem réewum Syrie xeex gaa ngay gën di tar ci diggante rebelle yi ak soldaar yi nga xam ne ñu ànd nguur Bachar al-Assad lii moo di ponk xibaar gi bu ngeen toog ñu daal di ñëw ci parampàcce gi mbokk yi kon di leen nuyu di leen dalalaat ci 2STV xibaar yi dañu koy doore ak julli korite gi nga xam ne dañ koy génn ndax kat am na njaboot yoo xam ne su fekkee ne am na ñoo xam ni daal di nañ koy def ci te bakkan am na ñoo xam ne ni kat dañ ko defee anam ka dafa daal di métti lool si ñoom rawatina fële nga xam ne moo di caaro yu ginnaaw raay nag foofu njaboot yu bëri ca biir ndox ma la ñu ko defee ba tax borom kër yu bëri talu ñoo sax dem ca jumaa ja jigéen ña ñoom ca biir ndox ma la ñu taalee wala ñu si bëri daal ñu taal suñu équipe dem na bokk ak ñoom korite gu métti googu Ndeye Arame Touré ak Cheikh Atab la lu ci ëpp ba su góor ñi dañuy dem juma jigéen ñi des ca kër ga di togg famille Dieng ñi ki yu bëri yu nekk ginnaaw ray noor am nañu luñ ci soppi ndax ndoxu taw mi nekk seen biir kër fii dañuy awlante ngacc ndox mi ci perong bi ngir am fu ñu toog borom kër gi ne lu ni mel tax mënul dem juma. yaa nga fekk may ngacc ñu ngi nii amu mënumaa mënumaa dem julli ji waa kër gaa ngi nii amuñu fu nu toog booy julli da ngay set ndax danga war a sangu jàpp julli te xam nga ne mii ndox kenn du jàpp julli xuus ci dem di julli ji loolu gannaaw yàlla ak yonent ba maa ngi koy jégul tey ñaan yàlla euh, balaa euh, ki yàlla jëlee ci lii. gannaaw julli gi ab dëkkandoo mu niiru ñëw na ko ziyaar. li ñu waxtaanee doon na wàllu mbënn mi. ndox mi dafa bari dafa bari dafa bari ñëpp boo ñëwoon seen kenn mënut a julli te surtout. seen xol nekkul ci fet sax waaye ngir bëgg seen i doom kontaan tax ñu jënd benn ginaar ak ay soblek pomme de terre yu ni mel. maa ngi nii di di di togg ne waaye damay may togg yëpp dara neexuma ci ndaxte nii dafa metti ngay dund si si ndox dafa metti trop nii nii xam nga ni ku ne soo sañoon sa kër lu mel nii. xale yee tax nag ñu koy def waaye mën naa laa wax ne la maa ngi togg nii mais ci xol bi naqari da depuis 2005 nag ba léegi nag maa ngi dund lii. Ndiira Sarr dafa mujjee rawale ay doomam ndax ndoxu taw mi ñu wéetal ko loolu waaye càttam bu jigéen bi des ci moom di fexe mu fàtte loolu. daanaka ñi fi nekk julli jiwnu ñeneen ñi ci des ñi xaj ñu ndaw ñi dama leen a yóbbu Bambey ci sama yaay ndax ndox mi moo tax. korite bi taloo taal cuuraay taloo la dara bu baax taloo sol mbubb bu baax taloo sol dàll bu baax ndax ndox mi nekk ci ndox mi. borom kër gi am métit lool di gis waa këram di dund ci ndox mi mënu ci dara gaa waaye mu ngi fexe jàppale leen ci seen nekkin. xanaa deme ko feet gu doy waar rek metti na lool lool lool lool lool lool ah, ndox maa ngi nii amuñu fu ñu taal gis nga douche bi yépp fees na dell fi mu ne fa jaaxle yam dañ faa commencé jëm kaw. fii ci ginnaaw raay noo ndox mi day faral di ball. tax mu niiru ak njabootam dañuy yendoo ngàcc ndox moom lu ñu ngàccul day dugg si day ball ndax day dugg si néegi sinon néegi yëpp a yàqu lali ak yére yëpp ñoo yàqu suñu suñu suñu ndox bi gis ngeen fii ni mu mel. saa yoo noppee ngàcc rek mu ball bis bi tey fexe di di di ngàcc di am fu nu toogandi bu muy kii ñuy ngàcc ba baa ba baa bi jàll. Ndira kilifa yi war nañ leen taxaw ndax sonn nañu te fi ñu dëkk feebar yu bëri mën na leen dal. ku ñu jàppale woon ba ndox mi am yoon wu mu mën a demee ba du fi taaju di fi taxaw ba di fi ball ba di nu dana baax trop. korité mooy fësal ni koor gi jeex na ci jullit yi su fekkee ni ñu bëri ci doomi réew mi seen dund day wéy di jaar yoon ñeneen jafe-jafe kese la ñuy dëkkee ndax ñu ngi dëkk ci biir ndox mi. Ndeye Aram Touré ginnaaw julli korité googu ëpp ci ñi nga xam ne nag ñoo di liggéeykat yi tey demuñu seen bureau yi. ba tax mbedd ndakaar yu dana daal di selaw lan moo ko waral nag nee nañ oto moo amul ñeneen ñi dañoo am gàllankoor moo tax demuñ seen bërëbu liggéeyukaay mu nekk loo xam ne dafay jur ak pertement ci koom-koomu réew mi ñenn ñoo ni gisee te di laaj li nga xam ne moo nguur Sénégal mu jël ay matuwaay bu ko jaree sax jël ay daan teg ko seen kaw ndax li jaaduwul Xadijatu Si ak Babacar Ndiaye ñoo dem gësu ci mbedd ndakaaru yi alxames ñaar fukki fan ak benn ci weerum août Sénégal fete korité ba noppi bés bi nag nekk bésum xëy waaye ñu bari liggéeyuñu mbedd mi nag néew loolu ki oto ñuy gis ni fête bi daa jeexagul. xëy na ñoom seen xam seen xalaat foofu la toll et puis am na ñoo xam ne am na excuse valable parce que on a des collègues yu dëkk ay Tamba ay Kolda fa yooyu ñoo mënul ñëw tey ah je pense. bu fekkee dañoo jullee seen dëkk ñoo mën a ñëw tey c'est difficile c'est mais bon s'ils ont une maintenant ñi amuñu amuñu permission nag maintenant c'est là où se pose la question quoi foofu la question bi nekk. ñàkkum xëy bi nag li mu mën a jur bëri loolu ñu bëri jàpp ni nguur gi dafa war a jël ay matuwaayam. ah état bi ma war a xoolaat rek euh, ñu mu koy ni ñu koy wax dee ci wolof sax ñu mu koy ñu mu koy arrangé quoi à mon avis ah ça dépasse ñun dañuy dépassé quoi parce que mënoo ne ni que far nga sëy par force mu ne dama am permission boobaa loo koy wax mënoo si dara. samedi defe naa sax danaa du mel nii waxtuma laa dimanche sax du mel nii xëy na tey bu fi ñu di nekkulee tamit am na commerce yoo bëri yoo xam ne ubbiwuñu aussi ci bésum tey bi nag ndakaaru wét loolu jaaykat yi nekkee sax ca marché Sandaga xëyuñu fi léegi nag nit ñi di xëyi tali bi nag wét na loolu xadijatu si ndakaaru gi rawatina yenn gox yu mel ni HLM Grand Yoff askan wa nelatuñ ba yandoor li ko waral nag moo di ñàkk kaaraange goo xam ne fi mu nekk moo fay lëmbee moo tere nelaw askan wa ginnaaw faatu ki nga xam ne moo de di Mamadou Thialé Ndiaye ki ñu ko faat nag moo di ay agresseur yoo xam ne guddik dimanche jàpp altine gi la maanaam démb bu gaay di julli njabootam ñoom bu ñu ngi ci tiis ak naqar mu nekk loo xam ne askan wi ña ngi koy ñaaw di laaj nguur gi mu jël ci ay matuwaay ndax kat li ni mel ma ngi fay bëgg a dëkk te itam te itam loraange rek lay jural askan wa Cheikh yi Maam Njawar Diallo ak ki nga xam ne moo di Babacar Ndiaye. ñi nekk ci HLM Grand Yoff nelawatuñu ba yandoor lu ko waral moom moo di banditisme bi nga xam ne nag jéggi na dayo foofu bañ ne suba la korité lañ fa jot a faat kenn rey ko reyin bu ñaaw bërëb bi nga xam ne nag fa lañ defee ñaawteef bi boo fa rombee ba léegi deret baa ngi foofu lii nag doon it beneen musiba baaba kumba boo xam ne dalaat na ci kaw askanu HLM Grand Yoff amul benn kaaraange nelawatuñu guddi nelawatuñu bëccëg nelawatuñu benn heure fii yoor yoor sax diggu bëccëg sax soo xefee ñu ñu nangu sa saak mbaa ñu def la lu bon ndax man mii di wax ak yow. sama belle sama caatu jëkkër. seen caat. jëkkëram dem boo Ndiaye même pas deux mois lañ ko agressé fii ñu taxaw nii. gis mu yor cartable te ay vers mu 11h euh, jàpp 11h30 dox yi ñëw ñu gis cartable bi foog ni xam naa alal bu dul jeex la. jaasi lañ ko dóor heureusement yàlla bañ loxo ba daggul mais xooñ dagg na dagg bu goo xam ne dañ ko mujjee ñaw. du na guleet am na fi amaat fi amaat fi amaat fi bu ñuy lem dañuy bu juum donc euh, problème insécurité moom ci Grand Yoff euh, Grand Yoff dans sa dans sa globalité c'est-à-dire depuis le village en passant par les cités donc kooku euh, vraiment dugguleet ci événement yu demee noonu y même pas plus de deux mois amoon na benn xale bu ñu rey booru booru pédago ñaawteef bi nag tax na ba kàddu yu bëri jóg ba ñenn ñi daal ñu ne fu mu toll nii faaw ñu xool naka la ñu war a mën a def ba dindi fi nag li nga xamante ne moo di caay-caay bi am foofu tey tax ba ñu ci bëri di ñàkk seen bakkan solution bi boo ko seetloo solution bi euh, global li problème yi ni mu posé wu ci réew mi yëpp noonu la posé wu fii nit ñi ak état bi ñoo ko war a taxaw parce que réew mi nag bu nit ñi jàpp lépp ne état moo ko war a am na loo xam ne population yi seen bopp ñoo war a taxaw lijjantil ko seen bopp ñun aussi parent yi ñoo war a jëkk jiitu ca loola ah booy béy ci sa waaru tànk day tax xale yi conscient boo ko boo ko jundee ci loo xamante ne bi baaxul dindi ko ca dindi ko ci lu baax gindi ko ci sàngara gindi ko ci yàmba vraiment waxuma la tux bi sax mais jaay bi ci biir si bi fii yëpp foofu tourné dañ naan la bërëb sàngam dañ ko fay jaay xale yi xam nañ ko donc ravitaillement du problème ci ñoom donc loolu vraiment ñu ngi koy ñaawlu bu baax te état bi xam na ci lu ci bare. fu mu toll nii nag ci waxtu ñaxtu lañ toll askan bi mu ngi yaakaar ne fii ak fan yu néew lii nga xam ne moo di nguur gi dana findi ay solution ndax ñi mën a dundaat ci jàmm. Cheikh Dia bi wax ci wàllum politique ndax kat fukki fan ak juróom benn ci weeru septembre gi la ñu amal élection li nga xam ne moo di sénatorial ci biir réew mi. mbër yi nga xam ne ñoo ci fas yéene samp seen dëndkat ne nañ am nañ fi ak mil yu maanaam bésub tay bii fii ba mu ne ay waxtu yu néew moo leen dese ngir ñu daal di déposé seen i liste ci ministère gi nga xam ne lañ ko dalalee mu di ministère gi yor wàllu intérieur nag nee nañ lépp loo xam ne matuwaay daal dinañ ko fay jël ndax kan mandataires yi ñoom fu mu nekk dernier minute rek la ñuy faral di ñëw kii ko xamal ne moo di mbëkk mbëkk mi ñu dénk wàllum élection ci biir mi ay kàddoom ki nga xam ne moo di Coro Njaay moo ko daal di taataan wàccaay élection sénatoriale donc euh, président de la république déjà jël na depuis le 6 octobre 2012 euh, décret bi convoqué électeurs yi ñu fàttali na électeurs yi ñoom ñooy conseil régionaux yi conseillers municipaux yi conseillers ruraux yi ak députés yi donc euh, loolu bu amee euh, leer nañu déjà ne date élection yi fixé nañ ko kon boog matuwaay yi ñu war a jël yëpp donte commencé woon na ci njëlbeen nga léegi dañ koy intensifier looloo waral comme ni code électoral waxee tey mu nekk le 21 août nekk bis bu mujj bi nga xam ne ci la parti ak coalition de parti politique yi war a déposé seen candidature yi donc euh, actuellement jël nañ disposition yi ba ngeen ñëw suur xam si suuf ñàkkul na gis ngeen fi ñaari nit ñu toog ci bunt bi ci benn ci bunt bi ci entrée ministère bi ci table kenn ki ndawu ministère la keneen ki ndawu Sénat la parce que lépp lu lépp lu ministère de l'Intérieur def seenaa daf koy xool saytu ko looloo waral ñu teg foofu benn registre en tout cas ñu ngi leen xaar euh, commencé guñu du ñàkk xëy na peut-être ci kanam ñu gis leen parce que bi ñu defee séminaire bi euh, maanaam rencontre bi nga xam ne partage nañ ak ñoom information yi war pour ñu préparer seen investiture yi xawoon nañu takku tuuti waaye nag donc euh, ñu ngi leen di xaarandi pour xam exactement ñan ñoo décidé ñëw ak ñan ñoo xam ne duñu duñu ñëw. wax ci leneen ca fële diwaanu Diourbel nga xam ne jàngalekatu alxuraan ñoo meral kilifa yi nga xam ne ñoo fay yeewoo mer goon li ko waral moo kat ba ñuy amal li nga xam ne mooy tarim alxuraan daal dañ cee woo amul kenn koo xam ne daal di nga fay teg sa tànk mu nekk loo xam ni dañ koo ñaaroo ñu ne ñàkk weg la waaye terewul tamit ñi ngay wax kilifa yooyu kat ne nañ dañoo soxla suuf ngir kat foo xam dañ fay samp seen daara yi waaye leneen xam ne daal dinañ koy ñaxtu moo di kat la xam ne moo di bërëbu fajookaay yi ñu yemal leen ko ba ñu mun faa faju ñoom ak seeni taalibee taalibe Pape Sayer Mbaye ak Bekay Ndiaye concours tarib alquran bu ñu amal ci njaareem kilifa diine ak kilifa aada yi nekk ci dëkk bi li fés ci seen ñàkk a teew lii di lu jàngalekatu alquran yi nga xam ñoom ñoo taxawal li li ñaawlu lool. nga xool conférence bu toll nii nga xam dañ koy def mu ànd ak musaabaxatul quraanul karim xale yi di jongante ci alquran tey waroon nañoo génn jël prix yu am solo andil ko xale yi waaye ñi fi nekk ci état bi ci dëkk bi yëpp amul fuñ tegul suñ tànk ci gouverneur conseil régional ak ci aju yëpp waaye bët bu set gi daara doon tawat rek ngay soo gisee jotaay beeg mbooloo mi ni ni mu toll nga xam ne ay junne junne nit ñoo fi dajee du benn ndimbal bu bàyyi ko ci état Sénégal waaye duut lu ñu ñàkk yëg yëg nañ ko lu waroon def def nañ ko. sëriñ daara yi nekk ci njaareem profité ci occasion bu ni mel ngir sàkku ay pàkk yu ñu mën a tabax ay daara. fu juróomi téeméeri dëkk ñu am benn terrain boo xam ne fanweeri mètre la xam ngeen loolu du dëkkuwaay te dëkk bi suuf des na fi. ñu di yàgg di ko daw ci gannaaw maire bi suñuy dossier suñuy këyit fépp fu ndaw état nekk ci dëkk bi te war ca jot jot nga ci moo xam impôt domaine wa moo xam waa cadastre yëg nañ ko moo xam waa mairie wa moo xam euh, gouverneur wa moo xam préfet wa kenn ku ci nekk ci yow jël nañu ay dossiers yóbbu te li ñuy wax mooy ñu dimbali ñu jox ñu ay terrain yu dongo yi mën a dëkk mën faa jàngi alxuraan yeneen càkkuteef yoo xam ne fesal nañu ko fa bokk na ñu jàppandal leen wàllum paj mi waaye tam ay émission rajo ak ngir ñu gën a mën a taxawu daara yi ñu may ñu bi ci hôpital yi xale yi ñu feebaree mën di fayu faju boobu ñu dugal leen ci cas social école français yi xale yi dañ yóbbu seen i carte rek dem faju mais surtout fii Jurbel hôpital bu mag bi fi nekk pour nga faju fi moo gën a métti sax xare ba kon loolu ñu ngi ñaan kuñ ci jàppale yéen tamit ñu ngeen di laaj suñu xàq yéen presse bi ngeen télé yëpp ngeen jox ñu ay ñu am ko di kaas di wax ci daara di wane li daara liggéey réew mi kon ñu ngi laaj nañu jox suñu xàq nañu jox suñu gëdd. téeméer boo jël ñeen fukk yi ci budget bu réew mi ñu dugal ko ci wàllu njàng mi jàngalkatu alxuraan yi nekk ci diwaanu njaareem di laaj wàllu daara yi laata ñuy ñaawlu lii li ñu duppee kumba am ndey ak kumba amul ndey di gënale gu ñu nemmeeku ne dafa am ci diggante njàngum nasaraan mi ak njàngum alxuraan. ñaawteef dañ fay gën di jaar di dugg ca moomu réew ba tax nag am na ñoo xam ne Syrie lañu ñu dëkk Turquie la dëkk dem nañ di manifester nag na gars yi tëj frontière bi ndax kat ay du yem ci bopp borom te lam leen commencé jural ñoom bokkuñ ca xeex ba. Euh, kon mbokk yi li moo gënoon a fees ci xibaaru juróom-ñaari waxtu yi ci kàllamay kocc geneen jotaayu xibaar juróom-ñetti waxtu lay doon ak Cheikh bi ci kàllamay nasaraan lay doon ñu fanaan ak jàmm.